jaamaarloo gu métti lañ daal di def ñoom ak agent sécurité université bi ñoom ñi leen nag di leen xamal ni kenn joxu leen autorisation ngir ñu bàyyi leen ñu amal fi seen point de presse loolee nag ñoom ñi étudiants yi jàpp nii duñ ko dégg benn yoon ndax jàpp nañ ne fii seen territoire la te kenn mënu leen a tere def seen point de presse xëccoo xuloo mer ba futtu daanaka ay waxtu lañ ci daal di teg laataa ñu leen di autoriser ngir rek ñu daal di koy amal li nag ñoom ñi lee di ko nakarlu bu baax a baax. tey dañoo ñëw fii ñu ñuy jaay doole di ñu buux les agents de COUD ñi nga xam ne dañ leen a forcé leen ay ordre ñu ñëw fi di ñu jaay doole ni duñ fi defee suñu point de presse te tegul fenn te en ku ci nekk am nga droit jël nga xamante ne moo la naqari nga jooti ko fu mu la neexee ci ñoo ngi koy wax ñoo ngi koy wax ni fii ci biir université Anta Cheikh Anta Diop ñi nga xam ne ñooy étudiant curie yi ñoo ngi leen ci xoqatal ñoo ngi leen di jaay doole. seen ndaje tay bi bokk na ci lu ko waral mooy naqarlu anam bi nga xamante ni nii noonu la ñuy jàngee ci biir université li ëpp ci ñoom di jaakaarloog jafe-jafe yu metti ndax ñàkk matériel pédagogique bu ñuy jàngee. benn ci point yi mooy système LND bi dañ koy appliquer. ñaareel bi mooy dañoo soxla ay clé USB pour suñu nouveau bachelier yi ñi nga xam ne ñoo ngi doog a ñëw ak ay machine yoo xamante ni dañ ci liggéey parce que informatique domaine numérique la nit ku ne nag boo ko orienté ci ba domaine numérique war nga ko mën a jox ay euh, moyens yoo xamante ni dina mën a suivre couram comme il se doit sans pour autant mu ci traverser yenn jafe-jafe yi seen wax doon benn mooy cours du fi am tànk yi la jafe-jafe saafara wuñu ko mot bi nga xamante ni nag appliqué nañ ko muy boycott total ci cours yëpp jusqu'à nouvel ordre nouvel ordre bi xam nga mooy lan mooy fii ak ñoom fajaluñu fajal laa wax ay promesse fekk fajaluñu incha allah duñ ko lëgee ndax ay promesse moo ñu indi ba fii.